di jëf mu dee koo tiim dóor ko loolu yeete la mu dee koo dóorul ne ko hey xamal ne loolu yeete la yàlla ne àllaa waabe ci dëgg suñu xamul ne ñu xam ne duum ñoom bañ ñu sudoona ñoo di way yàq yi sax sax sax sax wala ci li fi nekk lay suruuna xamaguñu ne ñoo di yàqkat yi ba gis kuñ ci taxaw rek wa ida xiila loo aminu kaama amana naasu ñenn ñi bu seen mbokk yi dajeeg ñoom di leen yedd naan gëm leen Mohammed ni ko nit ñi gëmi ay waay gëm leen ni Mohammed ni nit ñi gëmi jullit yee wax loolu yëfër yi ñoo wax loolu nafiq yi xaalu ñu tontooti tontu lu gën a ñaaw lu jëkk la mais an numinu kama amana sufahaaw am na ñetti prix da ngeen bëgg mu gëm pour rek dof yi gëm na loolu waxin la waaw ñoom Ibou Sakho gën Aliou Diop dof yi rek comme bokk nañu rek ngeen na nanu bokk dinañu firee noonu wala da ngeen bëgg mu tëf rek gëm ñi dof yi tëfee gëm sang sang sang kuri feeg laaj tëf rek gëm ñu duñu ko def balaa noo gëm dañuy xam li ñu gëm lu mu doon ñu ngay tuumaal ñi gëm ne li ñu gëm xamuñu ko wala ñu ngi naan dañ ko xam ba noppi def gëm ko quoi am na ñaari pin nu minu da ngeen bëgg nu gëm kaama amana ngir gëm na rek suba awu dof yi wala da ngeen bëgg nu gëm kaama amana ni ci tëbe gëm sanseet ak suba awu dof yi yàlla ne déedéet ñoom ñooñu ñoo di dof yi àla waabe ci dëgg innahum woo ñoom ñooñu bañ a gëm di tontu loolu umu ñoom sax sax waxuma ak ñeneen asufaha u ñooy way dof ya wala ci li fi nekk laa yaalamuuna xamuñu ne ñooy dof yi bàyyi ba bis ci rek wa idan yaqul ladina amanu léegi ñun suñu toog di waxtaan moom la ñu tudde jàt ci yàlla ji li ñuy waxtaane moom la ñu tudd waxi yàlla ji am na ñeneen ñu toog feneen fu tudd kootuwul grand place mbaa tëy kootuwul ñu ngi fay waxtaan leneen lu dul waxu yàlla ñaari kalan yooyu nag bu ñu dajee ci timis di waxante la yàllay nettali fa ida laqu bu ñu doxee ba dajeek lazina ña nga xam ne amanoo ñoo yéen ñu jóge fii ñu dajeeg ñoom na leen nu nga indi ci diin mbaa nu nga yendu ndaraaf mbaa nu nga yendu sanc ba ngir gëm yàlla xam nga ñoom it ña indi woon grand place xaaloo yu tontu na nit di di nit amanaa gëm nanu gëm nanu dañu empêché woon moonu tere ñëw tey waaye ëllëg dinañu ñëw loolu ñu ngi koy wax buñ dajee jullit yi waaye wa isa xalaaw bu ñu delluwaatee ca grand place ak pénc ma ba toog ila shayatinihim ci seen chef yi leen jiite ak seeni président ñu ne leen yéen dégg nañ ne wax ngeen ne da ngeen tuub ñu ne ah ah xaaloo ñu ne déet innaa nun maakum noog yéen a ànd ci diine kat ñu ne lu tax ngeen doon wax gaa yi dañu gëm nag ñu ne eh inna maanaam mustafaa lañ leen doon ñaawal rek lañ doon doon ñaawal rek waaye xam ngeen ñu noog yi naan yàlla ne allahu yàlla ci boppam yastahzi'u dina leen fay fayug aji ñaawalaate dina fay fayug aji ñaawalaate bihim ci ñooñu doon ñaawal jullit yi yumidduhum dina leen ndànku dina leen may jàmm ju ànd ak aleel fi tuxyaanihim ci seen biir kéefër googu yaamahuuna ñi di xëy di gont ba dee fekk leen ci luñ génn mukk ndax loo nekk jàmm fekk la ci nga def ko wasa fekk la ci nga def ko mbooloo fekk la ci wér da ngay daldi defe ne ñi la kon nag dinaa leen dolli jàmm dolli leen aleel dolli leen i doom dolli leen fajub aajo ba duñu mën a génn fi ma leen xeerkale mu di kéefër ñuy xëy di gont at yi deeg weer yi ba maakal matu fekk la waaw waaw ulaayka ñii ma la mujjee wax la si ne ñoo ñi nga xam ne astaro wecceekoo nañu dalaalata kéefër bil udaa ci lislaam astaro wecceekoo nañu dalaalata safax bil udee ci àjjana xam nga ne ku fab àjjana jënd ko safara maa nga fab lislaam jënd ko kéefër yàlla ne ku def loolu sa commerce amul bénéfice billahi fama rabiat bénéfice wul tijaaratuhum seen commerce ba wa maa kaanu nekku nit ñu te dina di mën a commerce ku mën a commerce da ngay jaay lu tuuti am lu bari waaye doo fab lu bari jaay ko ci lu tuuti te fab àddina jënde ko àlaxira jaay nga lu tuuti bàyyi sëñ Tuubaa nee na man baa ak duni man baa a nooran biddu jàppata yen dem waaw yaa fataa la tastari duni bi dunia waaw yaa fataa ngay jëkki jël yow cam si maa ngi dénku la tastari bul weccee ko dunia bul weccee ko sa àddina sa alaxira mi uxra man baa képp ku jaay na noonu lislaam bi du jaay jënd ko ci kéefër fa fa yënd mu di nga wéyt yàlla ne lu mën a am daal ku fab lislaam jënd ko kéefër daal la wóor borom ne daal mënula commerce te perte na ku weccee koo ajjana safara it xamula commerce te perte nga mu noonu masalahum ni ma la mën a mellalal naa fekk yooyu seen melo ci naro réccu ëllëg que masali levin la ndax falama adaa sa tax saabalaw bi nóorihim dafa def mufrat mubtada mi commencement bi le fin bi jam que masali levi mu nga mel ni waaja nga xam ne wala gaa ya nga xam ne dañuy dox ba alukaay mu lëndëm ni bi lëndëm lool ñàng lool ñu falaatu ba am na tam wow falaatu ba taal wër taal ba nag taal ba jural leen ñaar lu seen taal ba daw lu dand taal bi it ñu seen ko ngir taal bi taal baa ngi leen di dàqal di leen sole noonu la taal ci àll di def sàmm guddi ne lay def ku dox ba jënt so guddi arab bi noonu la ñu def bu guddee ba ñu dem fu ñu ragal dañuy taal soo taaloo la nga ragal dootu la ñeme ñi ñuuxu la nga ragal it di nga ko mën a séen waajal ko gaa yooyu nag noonu la ñu def nafiq yi noonu la ñu def seen liimaan lay niroo liimaan nafiq ndax bu bis pencaa dafa am fu ñuy traversé te liimaan lañ koy niitoo muy siraat siraat te na ku nekk daa fekk malaaka mii nga nekkaloon ci àddina mu di la réceptionné ak benn malaayka boo xam ne dafay ñëw ngir accueillir la yóbbu la sa affectation soo ñëwee nag dañ lay jox sa liimaan sa liimaan boobu mooy doon torche torche boobu ngay niitee ci biir siraat ma jàll ca côté bële dafa am ñoo xam ne dañ ci fekk torche mais naa fekk lu ñu woon seen liimaan gëwul buñ la joxee torche bi ba ñu dox quelques mètres ba dafay déversé batari bi duñ jeex ba dootuñu am dootuñu am fenn fu ñu gis mën fa teg tànk dootuñu am fiti avancé dootuñu mën it rëccee ñu bu wax nañ ci biir jaanama moo tax si daaj naa di wax naan ak nañu naa noona yàlla sunu batterie buñ ci jotee yàlla nga ko def muy batterie bu bañ a déchargé bañ a déchargé ba ñu jeexal bombe bi taaleen naam ndax wax nañ ñu gëm nañ nga seen li ñu doon ragal wala leen doon ragal jox leen ginnaaw taal bi jékki-jékki na kamen fitna la dugg ci sa néeg di tëdd ci guddi yàlla te ne courant amul sa sondeel it réer na la almet nga yow almet bi benn dooma ci am nga ne yoxoos ci néeg bi ñu bunte bi kap ne benn doomi almet bi paf mu leeral nga seen ñànguur ci kaw lal bi almet bi fay fitna fitna am na loolu de bañ a taal sax ngeen gis bañ a daal bañ a na bañ a na taal sax dal ci kawam rek mu dal ci kaw moo gën mu ne kamaj noonu la ñuy mel nag ba kamaj te taraku mu bàyyi leen nag fi zulumaatin ci ñetti lëndëm lëndëmi guddi gi lëndëmi xiin mi lëndëmi àll bi bu doon ci kër ga sax mu baax bu doon ci ëtt ba mu baax waaye ci biir àll ba la ci biir manding ma la ci guddi la du bëccëg dafa ànd ak xiin it ñu defe nag lëndëmu kéefa ñu mën a teg seen bët ba xel na ci dara ndax que lëndëm yi da leen wër kéefar lëndëm la bakkaar lëndëm la nafiq lëndëm summun bàyyi leen leen amuñu fenn fu ñu mën a teg seen bët ba xel na ci dara ndax que lëndëm yi da leen wër kéefar lëndëm la bakkaar lëndëm la nafiq lëndëm summun bàyyi leen leen lu yàgg yàgg booy tëx lañu tëx lañu ci naan dinañu dégg fen mais du ñu dégg dëgg lu tax du ñu dégg dëgg dañ ko doo nangu loo dégg te nangu woo ko mel na ne dégguloo ko ku dëgg xum yoon way sin ma xala ñëw danañu gisi caaxaan ak fen waaye mënuñoo gis dëgg axakañ dinañ ko gis sax waaye buñ ko gisee dañ ko lu nangu loo gis te nangu woo ko mel na ne gisuloo ko mbokk mun wéet lu lañu dañ wax mukk dëgg léeg-léeg sax ñu jiw wax ko waaye buñ ko waxee duñ ko nangu loo wax te nangu woon ko mel na ne waxula ko kon nag booye ba rek ne sumul wéy tëx lañu um ngir way si nax lañu mbokk mun wéy lu lañu fum am déet laa yar jawoon a amuñu pexe mu ñu reculer fii ba dellu ci jàmm te duñu reculer ba bàyyi nafiq dootuñu ñëw ba dugg ci lislaam dootuñu ñëwit ba digg ci ngëb du dëgg loolu gaa yi loolu li ma jëkk a wax mooy melaw nafiq ñu ngi dugg nag ci melaw yéefar léegi aw ka sayidi aw ka azabi sayid wala bu ñu melul loolu su ñu melul loolu ci exemple bu ñu melul ni ma la wax man yàlla ci exemple nit ku dina féq kon nañ ñëw ci yéefar bi yéefar bi moom nii la mel aw ka sëyi bi te alaabi sëyi bi mu ngi mel ni gars yi niir wa niir wa tiim leen di xiin sotti ndox lool ndox maa ngi jóge ci kaw niir wi waaye ndox mi dafa ànd ak xiin wu lëndëma lëndëma lëndëm biir xiin bi nag ay dënnoom ciy jib dënnu gi it balaa jib foog melax jib gis nga ñaare balaa na tay foog mën a rey ray boobu ngay gis malaaka mi commandé taw bi karaas gi mu yor di joxañ fi ñu war a jëme taw bi mooy melax boobu ngay gis bu ko bàcci nii nag mu ne ray bay bëgg a jël say bët ak bëti koo dendal ku ne dum su ko defee waa ji dal di sotti ndox mi su ko bàccee nag ba mu ne ray da ciy boole ne fii la fii la tuflit yooyu génn mooy dënnu bi salaaf gi bëgg a jël say bët tuflit yi bëgg a jël say nopp ndox mi doon sotti ko yàlla bari doole allahu akbar borom karaas boobu di koo gis-gis lu kenn musul a gis billaahi ne suñ borom daal bind na mbindeef yoo xam ne xëy wan na ko rek doy nii duwul soxlawul sax duma na jékki-jékki na wàññeet kiiraay di dox suñu diggante ak leen nat lu mu bind ku ne di nga tax say bët yuuxu bisimilah niir waa ngay sotti waaye bu ngay sotti fi xulumaatin ci ñetti lëndëm lëndëmi guddi gi lëndëmi niir wi lëndëmi taw bi wa barkul mu nga ànd ak i melax fay wa rëdun ak i dënn fay mu ne ray ku ne gëm mu ne tay ku ne fay say nopp ñu ne rekk nag taxaw ku la naa daa yëpp jamono boo xamee ne melxal dina na rey ma réew ñu profité jéggi ay jeego gaawtu ci leer gi leer gi du yàgg luy saa sama bu ne kamaj xaamoo ñu ne rek ñu ne rett taxaw ñu dox lu gaaw de ah bu ne rey ñu profité jéggi ay jéego bu ne kamaj ñu ne tekk taxaw alquran lay wax ak naafiq yi jamono bu alquran tëkkoo ñu tiit su waxee jàmm ñu fàtte tëkku ga law saa bu neexoon yàlla ni melax genn melax ñépp gëm kon lay ba dina yóbbuwaale bi sam'ihim ci noppee jamono bu mu dënnoo wa absaarina ak bisi bët ya genn dënn mën naa ramassé noppi nit ñëpp ni muy duggee ci noppi nit ñëpp genn melax mën naa ramassé bët gisi nit ñëpp ni muy duggee ci gisi nit ñëpp xamu leen ne inna laaha buur yàlla qadirun mën na ala kulli shay'in ci lépp lëf xamu leen loolu jërëjëf yàlla mën na lu nekk mën lu nekk nag jeexal na wax lu nekk bàyyeetuñ dara inna allaha ala kulli shay xadir yéefar yi buñ toogee ci wetu rasulillah yi alquran bi wàcce la niroog taw bi safara si ci nekk la niroog dënn yi àjjana si ci nekk la niroog leer gi nga ngi dem ji nag gëm jeeg bañ a gëm la niroog profitoo dox ak taxaw du noonu yëfër yi noonu la ñu mel nafiq yaa nga mel na leen nee la yëfër yi mel julit yi na la ñu mel lu dëgg yaj aloona ñu ngay dugal jamono buddan loo asaabihum ca si baaraam ya loo wax seen baaraam min baa bi sikre seehin yuridul kulla yuridu sikrul kulla bi iradati sikri sëy arab léeg-léeg mu tudd lëf tudd lépp te jubluwul lépp tuuti la ci jublu moom la borom bayaan di wax tudd tuuti te jublu lépp ak tudd lépp te jublu tuuti yajaaluuna ñu may dugal asaabihum seen baaraam yi la alxuraan bind mais baaraam xëjul ci nopp kon da ngay firi ne yajaaluuna ñu ngay dugal asaabihum seen cati baaraam ya seen cati baaraam ya fi asaanihim ci seen nopp ya lu dul noonu ñu ne nii xam nga lu tax ñu ne falaayiq yi ngir tarik dënn ko xalaral mawti ngir ragal dee ñu ne tar ñu dugal ne nopp yi walaaw yàlla mooy tun dina xëy wër ndomb lul keefir yi ne ci yëfër yëpp yàlla wër na ndomb yéefar yi wër na leen ndomb ci xam ku ne la mu def kenn ku ne foo dëkk kenn ku ne kañ koy dee kenn ku ne fii ngay suul ba ñu daj yakaadu tuutee tere yaxtifu di yóbbu albarku melax ga absaaruhum seen bés bu seen bët bët ya seen gis-gis ya bu dul woon ak baaxaayu yàlla courant ba yóbbuwaale ko ndax courant courant courant bi ci dënnu moo yóbbu ruuxu rox rox jamono rox dafa dugg di génn di dugg di génn di dugg di génn suba ba ngoon dina jaabante sëb diggante raxi ba bën bëni paxi bakken yi bunt bi yaxam ko naa fukki junne ak juróom-ñaar dix-sept mille nokki la nit di nokki par suba ba ngoon jamono buy dellu nag fekk sa nokki di génn courant bi da koy yóbbu dootul dellu si moo tax nit ñu naan dënnu gaa ko rey dënnu xejul ci nit da ngaa gis mu ne ñumbal dara du faj dara du damm te mu dee da ngaa gis ñaar ñu jiitle dënnu ñëw yóbbu kii ba fi kii nga gis ko boot doom dënnu jël doom ja mu boot ba fi kii fekk dafa fekk kii nokkeem di génn kii nokkeem di dugg jamono buy dënnu nag fekk sa nopp melax gi fekk sa nopp di génn da koy këf yóbbuwaale ko dootul dellu si ah mu ne nag su ma neexoon man yàlla que ma man lu nekk xool melax yu yóbbu bët yi dënn yu yóbbu ruu yëpp ñun ñu xëyandoo di néew waaye dinaa fi gàdd ruu yi gàdd fi dënn yi gàdd fi melax yi sotti ndox mi jariñoo ko ngir ñu war ca mën a dëgg sant xiiwal jaamu ma ku la ma adaa yëpp jamono bokk leer na ma sew ñu profité ay jeegu fii ca jamono leer ga way sa aslama bu ne kër yi xaamoo ñu ne fekk taxaw walaw saa bu neexoon laaw yàlla la zaaba mu ramassee ndoo bi sam ihim ci seen diggandoo yëpp ci génn dënn waab saari waay seen gisandoo yëpp ci génn melax inna laa borom bi xadirun mën naa laa kuli seen ci lépp la yaay waa naa su yéen doom aadama yile maa ngi leen di dénku abudu wéetal leen rabbukum seen borom jaamu leen yàlla ku ko ci deful di nga réccukat te yàlla nag yelloo na jaamu ndax léegi mooy ka nga xam ne xalaakum moo leen sos te amu leen woon ñun ñi fi toog ñëpp mille cent xamuñu fu ñu nekkoon diggante mille neuf cent ak léegi ñi ci ëpp ci la ñu xam fu àddina ne moo leen sosoon jël leen ca ñàkk boobu indi ci am gi yàlla nag day def buy wax ak yow day jëkk ci yow loolu laa génn tegu cekka ca tegu soo bëggee respect mu yéegaat cekka la ka ka sut kooka maanaam day te rëñ la maa la moom soo bëggee ñàkk tegin mbaa xamadi mu ne maa moom sa baay nga bëgg respect mu ne maa moom baayam dafa yéeg ci suuf lay dalee jëm ci kaw gisa rek u'budu rabbakum jaamu leen seen borom mu mel ni aji laaja ko laaj koy kooku mu ne la si xalxakum mooy ci leen dindi yéen yéen yéen ñi mu sant jaamu ñu ne ñun rek mu ne ah ah du yéen ak laa bind kat wala si ne min qablikum ak seen bàyyi leen juróom bàyyi leen juróom bàyyi leen juróom jaamu leen kooku bind leen bind seen jaam bind seen i bàyyi ak seen i maam laallakum tattaquuna ci ngeen di mën a amee mucc ci safara xam nga nit ki pare na wax na ne preuve yu tax nga war koo déggal ndéem ki la gàddul sold moom ngay déggal marché ki la gàddul wax ndéem ki gàddu sa njël ki nga gàddul njëlam maanaam dépense am muy jaar ci loxo moo la war a déggal marché ki ci la bind sa wax mu door a wëlbatiku nag wax na la sa jëmma ba noppi noonu mu ngi lay wax naa ji mu lay defal ginnaaw jëmmi xamu leen ba tey ko wax naa leen ne mooy ki leen bind ne ne xamu leen ko ma ne moo bindit ñi leen jiitu di bu ngeen ko xamul la fii mooy buur ba nga xam ne jaale bindal na làkkum ñaar leen lar de suuf firaasan mu di seen ab lal suufa ngi bu la neexee tëdd bu la neexee sawaanu bu la neexee jaaxaan bu la neexee dafaan te ne na ba ma koy bindit mottuma dama ko bind mu doy sëkk sëkk sëkk dëkk boo dem ba ca gat ñun ña daje ca pénc ma di nga defe ne kenn ku ne ci ñii mënu la am ruq bu mu fanaani mu jant sooy ku ne dugub ruq muntu kër yi dina bare bari ba nga defe ne dëkk bi war la def nag fu jàkk mën a am jàkk yi ne nan jàkk yi dina bare jumaa yi ba nga dëgg dëgg terrain football waru fee amaat mu am mu ne gàmm terrain football yi am ñu ne nag bàyyi bu ñu war di def cérémonie amul mu indi bàyyi teg ñu ne nag xanaa tool bu ñu béy de du am àll bi te jeex mu ne loolu ñooñu ñëpp dëgg la waaye fu ñu def ñëw yi nag mu indi armée yi duñ fees kon waxtu ma ñiy dund dëkku nañu penc yi def jàkk yi def fu ngeen suul ñiy dund def maa def loolu gis nga nag moo bind asamaan du loolu moo bind suuf waaye comme yow comme yow lay waxal li nga gën a miin léegi ci suuf nga gën a xam ci asamaan xamal ko asamaan dara wala huwa moom yàlla la fi mooy ba nga xam ne jaala defal na lakum yàlla la ba suuf firaasan muy seen noppalukaay lu nga yéeg nag yemul foofu kat wa samaa moo yëkkati asamaan binaan muy toiture bu taa daanu te dara caru ko ànd poids bi mu yor malaaka yi si kaw asamaan malaaka benn bu ci nekk trois cent quatre-vingt-dix mille tonnes nga te dafa fees del ku nekk da nga courir ci sa morom Moustapha nee na doo am foo teg sa tànk te teguloo ko ci tànku malaayik nabi daana toog ba mu yàgg mu naan xattati samaa wa xaqulaa an taxatta asamaan a ngi kii kii ji ngir diis waaye moo yooyu di kii kii ji poids bi dafa diis nabi daana toog ba mu yàgg mu dégg ne asamaan def kiic ne njoowaan goo takk kiic ngir poids suñ borom nag ne ko ay jaamala roon te boo daanoo musiba am wala xanaa ne laa yumsiku samaawaati wal arda an tazula wala in zaalata an yamsakahuma min aadin min baad nee na maa téye asamaan ba daanu seen kaw su ma rikkoon benn loxo dootu ko mën a téye te itam laa bii rek leeta tax ngeen indoo maa tooñ ba ngoon roomu asamaan fanaan ci indoo tooñ ku lépp doole mu tiim lor arme te asamaan ka dafa fees dalekk xeer asamaan dafa fees dalekk xeer malaaka yi daan na la ñu duñu mooy mukk mukk laajal waa kër Samuud waa kër Samuud la ngeen calcul kenn par kenn mais bañ ne ëpp xeer ya dal ku nekk sa xeer a ngi dal ci ndigg ci digg bopp jaar ci sa ndigg génn ci sa mbuñu ko bëtt suuf yi juróom-ñaar delluwaat ko waa sama wama wama wama wama bi zalimina min jahidin maa leen bind jaamu leen ma maa bind seeni yaay ak seeni baay ak seeni maam jaamu leen ma maa tàllal suuf ngeen di ci toog jaamu leen ma maa yëkkati asamaan muy toiture bu tëra dal ci seen kaw jaamu leen jar naa jaamu de yemul foofu kat wa anta la moo dala sotti ci maam Adama bi bi ci guddi ba léegi ci yoor yoor mooy sotti mi na samay tukki ci niir yi maa ndox mu neex bi lay boo taataanee taw bii xam ne fu mu jóge saltewul naxul day leer nañ ñi di melax boo koy ñamee mu ànd ak caf boo xam ne buy elloo ci loxo rek soppeeku bu fanaanee am mbalax njaat te ñu denc ko fu ñoom foo xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg du nëx du nëtëx du am wala njaat wala njaat man maa man man man nee na ngeen jaamu ma wax naa ay përëw maa leen bind doyoon na jaamu yemuma ci nag maa bind seeni baay doyoon na jaamu yemuma ci maa def suuf doyoon na jaamu yemuma ci maa yëkkati asamaan doyoon na jaamu yemuma ci may siital nag ndox mi ma ne ca maam Adama ba léegi ci fajar may sotti maa an ndox mu ma lewa lewa lewa lew fu ma koy jëlee ci ma samaay tukkee ko ci niir yi bu ye- bu ndox mi demee nag ba suuf woon na ko ba ngeen defe ne jeexa ndox mi door a liggéey fa axraja mu saxal lii ca ndoxam moomu mu sotti woon mina samaraat yi xeeti meññeent wu ngeen lekk wu mu doon ci la tàngoor ji génn ci la ceeb bi génn ci la dugub ji génn ci la mboq mi génn repas bi ci lay génn dessert bi ci lay génn yëpp maa ko liggéey ref am ngir wërsëgal lakum ñeel leen ay waa ji lee am leen ngor falaata seen woo bu leen sàkkal li laay ñeel borom liggéey bi am naa daan nawle waa antum se yéen taalamoon ngeen xam ne kenn du nawle dëgg dëgg dëgg dëgg bilaay ah sam waaw ay góor gaa ngoog waay ay falaata seen laan amaan léegi li leen bëgg a toronto mooy Muhammad a wax alquran dinaa leen dimbale nag man yàlla ba ngeen xam ne waxu ngeen gaaw ñëw siiwul léegi wa in kuntum dem da ngeen nekk yéen Quraysh xiree bin ci werante gëm ak bañ a gëm li ma ne zëlla ci li nga xam ne ñoo ko wàcce ala abdina ci sunu jaam bi ñoo ko Mohammed bu fekkee da ngeen ne moo ko waxal boppam ñëw leen ñu def nii mooy faatu dem leen ngeen daje te indi bi suuratin ci menn wenn faar wenn faar rek alxuraan ñaata faar la du cent quatorze cent quatorze faar cent quatorze faar yàlla ne waxuma ngeen indi soixante dix du ngeen ko mën waxuma sax ngeen indi trente du ngeen ko mën waxuma ngeen indi vingt du ngeen ko mën waxuma dix dama ne ngeen indi benn faar cent quatorze bu ci benn jóge lu ci def cent treize indi leen benn faar nag faar yëpp seet leen bi gën a gàtt alxuraan yëpp inaa tey naa kala ci gën a gàtt inaa tey naa kala ñetti aaya la ñetti aaya te alxuraan di six mille six cent soixante six aaya six mille six cent soixante six ci nga def naaw la mu ne indil trois rek indil trois bàyyi naag six mille six cent soixante lan soixante trois soixante trois divisé ko nag soixante fois yéen ñëpp yéen d'accord leen indi ci benn moo na rek lan moom kenn moo indi téere bi tout comme na ngeen moo ko waxal boppam te